Euh, mbokk yi nag tey dañoo bëgg ñëw wax ci proposition de loi bi nga xam ne euh, ànd sàmm jikko yi euh, yóbbu woon nañ ko assemblée national ngir ñu criminaliser borom ñaari tur yi bureau bu assemblée national daal di koy rejeter ci loolu lañu bëgg wax sunu xalaat fi ñuy dooree mooy. dafa am ñenn ñoo xam ne euh, samay nit lañ samay xarit lañ di yëngu ci wàllum politique nekk fii ci Touba di jàppale président Macky Sall dafa am ñenn si ñoom ñoo xam ne dañ ma laaj euh, proposition de loi bi nga xam ne rejeté nañ ko euh, lan la leen mën a yàqal ci lu jëm ci wàllum politique. ndax ñoom li tax ñu laaj loolu nee nañu dañu gis ne euh, pétition bi sëriñ Muntaxa signé woon na ko euh, gis nañ tamit ne sëriñ Muntaxa bind na lettre euh, di soutenir ànd sàmm jikko yi ba pare bokk si ñuy sàkku ngir ñu criminaliser borom ñaari tur yi ñu gànt loolu loolu moo tax ñoom ñu jàpp ne ndax munta ndax munu leen a yàqal dara Euh, ci lu jëm ci seen wàllum politique ñoom waa benn bokk yaakaar euh, biñ ma laajee loolu nag li ma leen njëkk wax mooy euh, boroom ñaari tuur yi maanaam doy na waar benn xeetu doy waar boo xam ne yéen li ngeen ci xalaat muy mbirum yàqal ci wàllum politique gañ ñàkk gañe daf cee tuuti ndax mbir la moo xam ne yàlla suñ boroom ci boppam moo ko moo ko bañ kon jàpp naa ne yéen euh, taxawaay bi ngeen waroon a njëkk am mooy loo xam ne du bëgg-bëggub yàlla suñ borom ngeen participer ci fexe ba du am ci réew mi euh, bu loolu lépp nag passé euh, ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum politique ñoom fi mu ne nii xalaat nañ askan bi sanctionné leen ci élection locale yi ndax dafa am benn benn solidarité bu am ci mbir mi ci mbirum proposition de loi bi boo xoolee mën nga ne ñi ëpp ci Sénégal yi dañu d'accord ñu criminaliser ko beneen bi euh, ñu gis ne sunu kilifa diine dañ si engagé wu ba signé si ay pétition bind ci ay lettres euh, adduna bi yëpp jot si euh, loolu dafa nekk loo xam ne dafa diis fi mu ne nii si ñi nga xam ne tey ñooy politique rawatina ñu nekk ci benn bokk yaakaar euh, dinaa wax sama xalaat ci rejet proposition de loi boobu mais comme dama am ay nit yoo xam ne dañu bokk ci benn bokk yaakaar sur le plan politique ñu laaj ma euh, ma tontoon leen mais dama leen bëgg a wax li ma xalaat ci président Macky sàll ak li kilifa yi di sàkku mu koy gàntal ndax lu jëm ci borom ñaari tur yi ak régime bi ñi leen ci jox xar bi baaraamu tuuma dafa bëri ba pare tamit dafa yàgg am waaye mus ñu indi ab tontu bu yay askan wi léegi nag euh, lii nga xamante ni moo am ñu rejeté proposition de loi bi te ñi ko rejeté muy député yi nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ndax dama si doon waxtaan ak benn député PDS euh, Serigne Cheikh Bara Dolly bi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire libéral euh, euh, liberté démocrate bi ñu rejeté projet de loi bi dañ doon waxtaan ma ne ko mbir mi nan la demee mu ne ma membre yi mu ne ma bureau bi 19 la 19 membre waaye jouru réunion ba diis mooy ñëw ma ne ko dix-neuf membres yooyu yéen opposition bi ñaata ngeen ci am mu ne ma ñaari deux membres lañ ci am ma ne ko deux membres kese ci dix-neuf yi mu ne ma waaw ma ne ko jouru réunion ba ñaataa ñu mu ne ma dix man ne ko dix yooyu euh, yow kan la mu ne ma dix yi man la yeneen neuf yëpp ci pouvoir bi lañ bokk ma ne ko est comme bureau bi 19 la bu dee 10 kese ñëw est-ce que li kon absence yooyu ndax mun doon bloqué liggéey yi mu ne ma mu ne ma déedéet maanaam ñi absenté yàqul dara ci ci ñoom ci vote bi ñu doon def ci bureau bi ma ne ko xam ah, ne waaw ma ne ko léegi yow lan moo nekkoon sa position yan argument nga leen indil mu wax ma argument yi mu leen indil indil leen ay aaya alxuraan indil leen ay addis indil leen kilifa diina yi ni ñu ni ñu àndee ci ñu criminaliser borom ñaari tur yi moo ma déglu ko mu wax ba pare euh, ma félicité ko ci loolu waaye li ma si jàppee rek mooy ñi doon waxal ay aayaag yooyu xam naa da doon jaar ci nopp bi rek génn ci beneen nopp bi ndax régime bii fi nekk bu paasee yàgg tuumaal giñ leen yàgg tuumaal waaye tamit dañ leen yàgg tuumaal ne wéguñu ñi nga xam ne ñooy sunu kilifa diine yi te président Macky Sall war see góorgóorlu bu baax a baax a baax waaye gis nañ ne euh, dafa des euh, pour ma reveniraat ci ñi ma laaj euh, rejet bi ndax mënu leen a yàqal ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mën na leen a yàqal mm, xañ na waaye man li ma xalaat ak li ma gis daal mooy président Macky Sall am na ñeenti mbir yoo xam ne. jàpp naa ne am na murit yu baree bare yoo xam ne danañ ko ko jàppal loo xam ne yàggul génnul at te loolu lépp mën na leen a indil ay jafe-jafe naam yàgg nañoo am jafe-jafe ci lu jëm ci mbirum élection ci Touba waaye dama gis ñetti ñeenti mbir yu sëriñ mun taxa sàkku euh, si ñi ŋànk réew mi te ñeenti mbir yooyu yépp yi ma yëg ne sàkku na ko daal te ma xam ne euh, lu ko ñor la priorité la état bi def ko bi si njëkk mooy sëñ bi euh, dafa biñ màggal gi jub si euh, daf ne woon bëggut gis kenn ku politique ci biir Touba mu def ci déclaration def ci communiqué président Macky Sall teg si ay fan ñëw parce que matul 72 heures matul ay quarant heures ñëw Touba wax ba pare na moom munta ñàkk politique ci dëkk bi def politique am loolu murit yu baree baree bari remarqué nañ ko naq neexu leen kon sëriñ bi am na lum ñaan loo xam ne moom président Macky Sall fëq na ndigal loolu te yoonu murit kenn mënu ci génne euh, ndigal Euh, beneen bi nga xamante ni tamit wala ñaar yi may boole te mu nekk loo xam ne priorité la sëñ bi mooy ndoxum Touba ak assainissement Touba ma gis ne sëriñ Mountakha yónnee na sëñ Bass ci gouvernement bi na leen dañu bëgg ndox bu nit ñi màggal see fekk fi ndox waaye bu nit ñi màggal see tamit buñ fi fekk ndox ci mbedd mi buñ fi fekk ndox ci mbedd mi mooy nañu fexe ba assainissement am loolu nag bi ko sëriñ bi wax boobu màggal des na lu baree baree bari ndax comité d'organisation bi ñoom leeroon na leen na leen màggal gii di ñëw wala gi ci topp nawet bi ci màggal gi lay fekk te sëriñ bi dafa am benn yërmaane boo am ci askan wi màggal si ma gis ne loolu nekkoon càkkuteefu sëriñ bi dafa mel ni sax euh, dafa gën a yées maanaam jafe yi askan wi dafa gën a metti ndax màggal gi passé ndox dafa gën a manqué dëkk bi fees dell ak ndox te loolu bokkoon na ci càkkuteefu sëriñ bi muy ndox mi ak assainissement bi te ren budget bi plus de cinq mille milliards budget bu Sénégal gis naa ne ci li ma benn député wax Cheikh Abdou euh, Bara Dolly bi ma ko laajee euh, nee na ma deux milliards la ñu programmé ci assainissement Touba assainissement Touba xam naa plus de cent et quelques milliards wala plus de cinquante nangami milliards normalement moo doon xaw a jege ci assainissement Touba mais boo ne deux milliards voilà euh, beneen bi nga xamante ni nag mooy ñeenteel bi criminaliser borom ñaari tur yi loolu tamit càkkuteefu sëriñ bi la ma gis ne gàntal nañ ko maanaam li ma bëgg a wax daal mooy lu lu loo xam ne ci ay weer la dafa am ñeenti càkkuteef yoo xam ne sëriñ bi sàkku na ko te amu ci mbegte mooy sàkku nañu criminaliser borom ñaari tur yi député yi ànd ak président Macky gàntal ko sàkku na woon bu kenn politique ci Touba président Macky Sall ñëw bu Touba ne mu munta ñàkk politique sëriñ bi sàkk woon na assainissement Touba sàkk woon na ndox Touba waaye gis nañ ne euh, ba léegi euh, yàlla xam doy na loolu nag mbir la moo xam ne euh, am na ñenn ñoo xam ne dinañ ko jàpp ci li nga xam ne moom laa moom laa njort ndax mbirum député yi projet de loi bii nga xamante ni ñoom dañ koo rejeté fii ci Sénégal wala sénégalais boo xam ne peut-être dafay foowe am xelam waaye man li ma jàpp mooy. muy Aymérou Gningue mi jiite groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar di Moustapha Niass di ñeneen ak ñeneen député yooyu bokk ci benn Bokk Yaakaar si li ma jàpp mooy ñemewuñoo def lenn assemblée nationale te président Macky Sall àndu ci moo xam dañuy accepter moo xam dañuy rejeter waaye lu mu ci man di doon rek jàpp naa ne duñ ko def te président Macky Sall àndu ci loolu laa jàpp euh, proposition de loi bii nag. Euh, kilifa diini yi wane nañ ci seen position askan bi wane nañ ci seen position bureau assemblée nationale rejeté pro proposition de loi boobu te fii ci Sénégal député yi voté nañ fi ay loi yoo xam ne presque sénégalais sax yëguñu ko ne voté nañ fi ay loi te mul benn problème si ñoom kon jàpp naa ne proposition de loi bu mel nii bu ñu nee ba sénégalais yépp xalif généraux yi signé église bi ñépp mboolem kilifa diine si réew mi état bi euh, député yi bokk ci benn bokk yaar gàntal ko loolu jàpp naa ne tooñ sénégalais yi la tooñ askan wi la te taxawaay war na mën a gën a am ci li nga xamante ni tey euh, moom mooy euh, moom mooy wàll woowu ndax ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi biñ fi sàkkoo ñu yokk criminaliser vol de bétail dañ leen ko defal biñ koy voté vol de bétail di ko criminaliser Sénégal yu bari yëguñu ko biñ fiy criminaliser viol ay kuréelu jigéen sàkkoon ko voté nañ ko te sénégalais yu baree baree baree bari bàyyiwul si xel man ma jàpp ne président Macky Sall bi mu déggee ñu ne Serigne Babacar Sy Mansour si na pétition bi ngir ñu criminaliser borom ñaari tur yi loolu rek toyoon na pour ñu jël proposition de loi boobu jàllale ko assemblée nationale waxuma laa njaasaan Ceneba euh, Medina bàyyi Touba église bi askan bi ñépp jóg ñu gàntal leen ko loolu nag mbir la moo xam ne mbir mu day waar day waar la beneen bi nga xam ne nag fi laay jeexale mooy dafa am loo xam ne ñenn ñoo ngi koy wax dafa am ñu ne Ousmane Sonko bi ñuy yóbbu proposition de loi bi euh, dafa desee wane taxawaayam maanaam ñenn ñi dañoo jàppoon ne euh, ni Guirassy yi taxawee wala ni Cheikh Bamba Dièye taxawee noonu la Ousmane Sonko waroon taxawee en tant que leader wala mais li ñu bëgg a wax foofu mooy euh, Cheikh Bamba Dièye ñoo ñëpp mbaax nañu dem mais Ousmane sonk su demoon ci li ma jàpp mooy dina yàq lu bari ndax tey fii ci Sénégal bu ñu ne président Macky Sall rek dañ naan Ousmane sonk tey yeneen politiciens yépp dugal ci seen loxo mën naa bañ a garaaw mais bu si Ousmane Sonko dugalee loxoom rek wala mu fekke benn conférence de presse bu ànd sàmm jikko yi def rek man naa xajamal lu baree bari man day fay boobaa dafay may ñii porte de sortie wala da leen di may aw lay prétexte ndax bu si Ousmane Sonko feeñoon rek. dañuy jël image Ousmane Sonko ak ànd sàmm jikko yi jël ko tasaare ko yóbbu ko bitim réew yóbbu ko si ñi nga xam ne ñoo leen teg pression ne leen gis ngeen Ousmane sonk la ñii ñëpp ngeen di gis si Pastef lañ bokk coalition yeeyu askan wi usman sonk lañ àndal mbirum politique la Ousmane sonk moo leen yebal nangam ak nangam su ko defee waa bitim réew ak ñi leen teg pression naan waaw konkat lii du askan wa ñoo ko sàkku waaye minorite la ay ay politiciens kese la. mën a dem ci kër kilifa diine yi na leen Ousmane Sonko la mbirum politique la waaye su si ni si Ousmane Sonko bañee feeñee loolu mooy stratégie bi nga xam ne dafa baax ndax ñii booy jëflanteeg ñoom da ngay jëflanteeg ñoom ci xel bañ jëflanteeg ñoom ci ay frit ndax lii mooy li nga xam ne mooy stratégie bi nga xam ne daal mooy stratégie bu baax bi te bu dee boroom ñaari tur yi sonk wanee na si position ay yooni yoon ndax rassemblement xeex borom ñaari tuuti am na fi mu déplacé wu dem teewul bi mu déplacé wu dem ak beneen manifestation jëm ci wàllum diine ay nitu diine fekke woon ko après ba ñu fa jógee ñu bari dañ doon wax ne ñii fi doon dajale Ousmane Sonko la ñu àndal léegi nag moo tax état bi dafay am ay porte de sorte yoo xam ne wala ay lay yoo xam ne kenn euh, kenn waru leen koo euh, kenn waru leen koo may euh, kon lii laa ne woon naa ko wax ci mbir mi mooy li nga xam ne moom la askan wi bëgg li nga xam ne moom la xalif généraux yépp bëgg li xalif généraux yi sàkku loolu la député yi bokk ci benn bokk yaakaar gàntal ci assemblée nationale ndax jàpp naa ne sëriñ Babacar Sy Mansour lu mu bu signé signal na mboolem koo xam ne nitu diine nga wala mboolem koo xam ne danga bokk ci tarixa tijaaniya Serigne Mountakha bu signé pétition ngir ñu criminaliser borom ñaari tur yi mën nañ ne signal na mbooleem kuy nitu diine waaye signal na képp koo xamante ni tey taalibe murit ga Njaasaan noonu Medina Baay noonu Kàmbure noonu église bi noonu kon l'histoire retiendra que bi sàmmkat yi sonne ci vol de bétail criminaliser nañ leen ko l'histoire retiendra que bi ay jigéen bëggee ñu criminaliser seen viole defal nañ leen ko l'histoire retiendra que bi xalif généraux yi jógee ne dañoo bëgg ñu criminaliser leen boroom ñaari tur yi dañu leen ko lànkal jërë ngeen jëf